doon doo nekk candidat mu teg ko ci leen ci gëm naa ne mbiru ñetteelu mandat wa rahmatullah taala wa barakaatu ngi ñuy ñëpp ku ci nekk sa tur ak sant di leen ziar di leen màggal di leen damoo di leen tiitaro ñu wax ne affaire yi du yàgg rek di leen xamal nii sama gars yi Sonko mi ngi ci coma Sonko mu ngi ci diggante dund ak dee démb ci ngoon la am crise d'asthme comme lekkul des grèves de la faim di mettitlu tooñ guñ ko tooñ ak mbañeel giñ ko bañ ak liñ ko bëgg a teg mu koy naqarlu mu entamé benn grève de la faim depuis jour bi nga xam ni jàpp nañ ko muy samedi bi vendredi lañ ko jàpp samedi bi mu commencé grève de la faim donc ba démb mu mujjee daanu ñu jël ko yóbbu ko ci infirmerie bu nekk ci hôpital bi bu nekk ci kaso bi du bi Sébikotane bañ ko fa yóbbee nag docteur bi injecté na ko ñaari butéel perfusion bu mu ko injecté ñaari butéel perfusion mu amoon problème mu nokki day dënn bi day recherché pour am ngelaw bu mu xëcc mu doon fàtt bu mu demee ba nga xam ne nag affaire ba sonnal na ko aide euh, infirmier bi nga xam ne mi ngi nekk ci kaso bi ci infirmerie bi mu contacter Jean Bocandé bi nga xam ni moom moo jiite prison yi le commandant Jean Bocandé ba mu ko wooyee Jean Bocandé woo njiitam yi nekk ci kaw ministre de la justice ministre de la justice it woo ñeneen ñi ko jiite ñu xamal ni Ousmane Sonko mi ngi ci coma donc ba ñu contacté woo ci tey lañ ko jël yanu ko yóbbu ko principal parce que Jean Bocandé comme ni mu la ko waxee du seetaan Sonko dee ci ay loxom munul jël responsabilité yooyu donc loolu moo tax ñu mujj ko jël transféré ko principal bu ñu ko jëlee principal ba ba léegi it jàpp leen ni Ousmane Sonko jamono ji ku leen wax ni situation bi dafa baax wala tane na day kàcc jamono ji Ousmane Sonko ba léegi mu ngi ci comment lu naan comment artificiel ne du comment profond coma artificiel mooy coma boo xam buy doog a tàmbali jam nañ ko ay perfusion ba léegi mais Ousmane Sonko parce que dara dafa loof dara newul ci yaram bi mu jeex tàkk mel ni ku nekk ci diggante dund ak dee nekk dans un coma artificiel donc ci kaw loolu les médecins yi nga xam ni ñoo ko yor woo nañ seen njiit seeni njiit yi woo ba mu yegg ci Macky Sall ki nga xam ni mooy général Sène leen di wax nag déglu leen bu baax te ngeen noté général Sène li képp kuy renseignement ci Sénégal général Sène mooy sa chef général Sène nag Sène day rendre compte. tous les jours saa yi fa Macky Sall nekkee ak bu fa nekkut dafay dem pale rendre compte Macky Sall ci renseignement yu mu dajale ci Sénégal yépp te ko def ñetti yoon ci fan bi ci bés bi huit heures day dem jox Macky Sall ko compte treize heures mu rendre compte Macky vingt heures mu rendre compte makisal ñetti yi général Sène day gisante ak Macky trois fois par jour pour rendre ko compte ci lépp lu fi renseignement généraux lu muy dajale la réunion qui bi am général Sène bu mujj bii général Sène dem na pour rendre compte makisal la situation de Ousmane Sonko bañ ca waxtaanee ñoom ñëpp Ousmane Macky Sall woo na ministère de la justice woona na ñàkk jom woo na ay njiit ñu waxtaan nan la ñuy fas yéene def léegi ils ont décidé diggante tey ak suba Ousmane Sonko du génn tey suba. ba ginnaaw su Ousmane ko du génn ils ont décidé ñu rey Ousmane Sonko ñu jam ko pikiir poison pour soit mu dee ko mu ñaari yooyu lañu décidé soit ñu jam ko pikiir poison ci perfusion yi mu dugg ci ven yi ñu rey ko benn yoon ñu ne dafa am crise d'asthme mënutul nokki poumon yi ñoo fattu mu faat mu jaaree fa faatu ñu génne seeni këy bind ay dossier médical génn ne Ousmane Sonko ci grève de la faim bi daf ci am crise d'asthme munul nokki dënn bi fattu mu dee mooy premier bu ñu décider ñoom pour rey Ousmane Sonko deuxième waxtaanee nañ foofu tamit ca ca euh, ñoom seen rassemblement muy Macky Sall muy général Sène bi gérer renseignements généraux ak ñoom Antoine ñàkk Jom ak ñoom Ismaïla Madior Fall wax nañ tamit deuxième option wala ñu jamaat ko poison bi mais ñu bàyyi ko si trois jours bu génnee dootul wérati balaa élection yi ngeen dégg ni Ousmane Sonko faatu na ñaar yooyu lañ décidé mooy li nga xam ne dañ ci pare rek ma jot renseignement yi ñu ne ma gaawal nga wax ko sénégalais Macky Sall a décidé de de d'assassiner Ousmane Sonko ci ci biir hôpital bi principal ci lal boobu mu tëdd noonu nekk dans le coma artificiel Macky Sall a décidé de liquider d'assassiner Ousmane Sonko à travers une injection une injection de poison loolu la décidé boo xam ni day am problème résultat ci prolongement bi respiratoire donc ils ont décidé à travers sa respiration bi nga xam ni mi ngi nekk dans le coma dafa am problème respiration Macky Sall le général Sène et ses ministres de justice de la justice et de ministre de l'intérieur ont décidé finalement de d'assassiner Ousmane Sonko. Ils ont décidé d'assassiner Ousmane Sonko à travers une injection en poison bu ñu ko bëgg a injecté pour soit mu dee ñu génne euh, bind mais dafa feebaroon dafa amoon lii dafa amoon loolu lépp mi ngi ko amee ci li nga xam ni moom mooy grève de la faim bi. loolu buñ ko defee di ngeen dégg fii ak ñaari fan parce que suba lañ décidé def ko. fii ak ñaari fan Ousmane Sonko faatu na ci euh, li nga xam ni moom mooy grève de la faim bi ñaar moom mooy deuxième ñu injecté ko Macky Sall a décidé avec ses bandits de grand chemin son association de malfaiteurs d'injecter un poison à Ousmane Sonko pour fii ak gin suba wala ginnaaw suba. après dinañ ko bàyyi donc Ousmane Sonko sortira ci euh, li nga xam ne mooy euh, euh, hôpital bi ak poison boobu nga xam ni da ko fas yéenee rey petit à di ko lekk di lekk xol bi parce que poison boobu noonu dafa am rapport ak day day day attaquer say poumon nga am problème respiratoire da ngay mujjee fàtt ba faatu donc loolu lañ décidé ñu moo tax nu mu gën a gaawee euh, ñi nga xam ni ñoo leen di infiltrer su si renseignement généraux yi nga xam ni ay nit Ousmane Sonko la parce que ñëpp bañuñu Ousmane Sonko am na ñu nekk ak Macky ñu bëri euh, seen xol yi bëgg Ousmane Sonko ay gendarme lañ ay policier lañ ay garde pénitentiaire lañ ay ay généraux lañ ñi am na ñoo xam ni bañuñu Ousmane Sonko yàlla moo ko def ndax ñëpp bonuñu donc ñooñu kenn ci ñoom ab jigéen vraiment am na jigéen am nay góor. woo nañ ma léegi ne ma gaawal gaawal nga aviser le peuple sénégalais nga alerter l'opinion nationale et internationale ngeen wax ak ñëpp ñu préparé wu parce que Ousmane Sonko Macky Sall a décidé de l'assassiner à travers euh, benn injection respiratoire boo xam day am problème respiration ba faatu soit ci hôpital bi soit bu génnee euh, affaire boobu topp ko ba mu faatu donc loolu lañ ma wax ma génn wax leen euh, ngeen préparé wu l'opinion nationale te lépp lu Ousmane dal Ousmane Sonko ki nga xam ni mooy Macky la lépp lu ko dal rek Macky ak ay mbokk mbaaram ma loolu nag na ngeen ko xam Macky kenn du leen nettali criminalité am kenn du leen nettali raykatu nit ki fi jëlee Didier Badji un Macky Sall jël ko fekk ko ci biir camp bi mu sol blouson mu fekk ko ci biir camp bi rocc ko ci biir camp bi boole ko ay nit ñu jàpp ko rey ko je pense bien que kooku buñ la taxawee di la wax ni mi ngi waajal ku ko gën a noonoo Macky Sall Didier Badji du noonam Macky bu defee loolu Didier Badji parce que dafa jàpp ni rek day renseigner Ousmane Sonko kooku bu jàkkoo Ousmane Sonko du ko bàyyi il faut nga nekk dof wala sa ndey baaxut jur nga nekk doomi xaraam kese. keese wala ñu juree la tëmb sa sa ndey di taxawaalu ba nit góor nax ko ñu juree la ci mbalit rek moo mënul gëm lii dama ne Macky Sall jàpp na di Didier ji fekk ko ci kanam militaire Dial Diop génn ko fa dem assassiné ko daggate ko tëmbal ko ci giir géej lan la def parce que dafa jàpp ni day renseigner rek noonam muy Ousmane Sonko yaakaar naa ni ku def loolu sa ku ku jàpp ni daf lay daf lay renseigner nga def ko nu mel noonu boo jàppee sa noonu noo koy def wax leen boo jàppee sa noo koy def Macky Sall jàpp na ni Fulbert Sambou Fulbert Sambou militaire moom la fekk ci camp ba génne ko daggate ko sànni ko ci géej kii di Fulbert Sambou Didier Badji di gendarme renseignement généraux ñu indexé ko ne moom day renseigner Ousmane Sonko ñu jàppate daggate ko sotti ko assit ba mu seey kooku Macky Sall la ko def. kon ku mën a def loolu doomu aadama ñu la waxee ni kii rey na Ousmane Sonko bu la bettee sa nday baaxul am na nañ ñu seen nday baaxul kenn mu leen renseigner seen yaay oyof sër lañu woon taxawaalu ñu biiral leen ci àll yi ñu génn amuñu bopp wala ñu ñu ñu nekk ñu neex a manipuler donc ñooñu am nañ tamit ci ñun ne ñun ñooñu intéressé wuñ ñu am nañu seen nday baax seen baay baax ñu jur leen ci sirata mustaqim ñu yeewu xam luy dëgg ak luy fen ay doomi xaraam nag ñun lijjanti leen donc ñu ngi wax nit yi baax yi ñi seen ndey baax liggéey ko seen kër baay yi ñu jur leen ci siraat mustaqim ñu yeewu seen bopp am lu ci nekk ñooñu la ñu waxal dama ne Macky Sall assassin la raykatu nit la moo jàpp Fulbert Sambou di militaire mu fekk ko biir Kandial génne ko foofu exfiltré ko dem daggate ko sànni ci digg géej gi te renseignement généraux militaire la mu jàpp kii di Fulbert Sambou Didier Badji muy Didier mooy gendarme bi kooku la seeyal jàpp Fulbert Sambou daggate ko sànni di géej ñuy for loxo for fee tànk mu dem ci ki nga xam ne mooy François Mancabou rey ko génn fenal ko donc kooku te ñooñu ñëpp dafa jàpp ne dañuy renseigner noonu bu mu jàpp noonam boo xam bu ko gisee sax gis butitam yi muy Ousmane Sonko donc kooku tey moom moo poussé tey jaay Ousmane Sonko doole tëj ko téye ko jaay ci doole force ne da koy liquider donc fekk na ko ci lalu hôpital ba bu ko assassiné je pense que du ñu toog nag ba mu rey ko ba mu pikiir ko poison léthargique poison buy buy am problème mu mu am problème mu respiratoire mu jaaree ci comment boobu noonu Ousmane Sonko jamono ji mi ngi entre la vie et la mort et nekk dans le coma Macky Sall a décidé rey ko une bonne fois nee na nañ ko ko rayal mu jeex tàkk waxu Ousmane Sonko jeex nañ ko rayal Ousmane Sonko waxu Ousmane Sonko jeex nañ ko injecté diggante tey ak suba Ousmane Sonko du génn nañ ko injecté. piqûre boobu noonu poison boobu noonu mu dee ko ci lal hôpital bi wala ñu poison ko beneen poison boo xam ni benn xeetu poison boo xam ni fa lay jaaree di am problème respiratoire ba noonu lay dee balaa six six mois donc Macky Sall a décidé finalement de liquider de tuer d'assassiner Ousmane Sonko son opposant radical boo xam ne moom la gën a bañ Macky Sall bu ñu newoon rayal benn nit Ousmane Sonko lay dem rey amul keneen ñi jege Ousmane Sonko ñëpp ñi dàq na leen ñi rey na leen ñi tëj na leen ñi éliminer na leen donc kooku mooy ennemi public number one am moom la gën a bañ buñ tëraloon yàlla bu tëraloon dix-huit millions de sénégalais ne ko rayal kenn Ousmane Sonko lay wëri ba ci biir dix-huit millions yi dàkk tey xaajale bopp beeg baat bi donc lii moom moo fi am loolu lañ ñëwoon di leen wax euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah taalaa barkaatu di leen wax ngeen partagé ko partout nu mu gën a gaawee ñu alerter l'opinion nationale et internationale xam naa ni kenn Ousmane Macky Sall kenn du ko jàngal kenn raykatu nit la bu yëngu amee mu indi ay nervi jox leen ay fetal ñuy tiire sénégalais yi rey na soixante cinq sénégalais soixante cinq sénégalais moo ko njëkk a def dans l'histoire du euh, de la république Sénégal ba Sénégal daj benn président musul rey 65 Macky Sall moo rey cinq sénégalais ay balu fetal ñii ci bopp ñii ci dënn ñii ci xol ñii ci butit ñii ci biir ñii partout Macky Sall rey na 65 sénégalais tëj 800 sénégalais disparaître rey militaire renseignements généraux daggate ko sànni ci géej rey un gendarme sotti ko euh, sotti ko euh, euh, ba seeyal ko donc kooku noonu. dem fekk ci biir kaso bi ci biir giri yi Fulbert euh, euh, François Mancabou rey ko donc c' est le plus grand criminel le boucher de la République sa est Macky Sall le mendiant c' est Macky Sall le Sall donc fas yéene na ne day rey ji Ousmane Sonko donc au peuple sénégalais de se lever et de dire non bu leen dara bett dara bu mu leen bett wax nañ leen lépp asalaamaaleykum wa rahmatullah taala barkatu peace na maaw